ginnaaw gi ñu bàyyi ko tuuma yiñ tegoon ci kawam it yu bari rot euh, wala lépp ëllëg euh, ci altine ji la nuy euh, fàttaliku at wala ñetti at ginnaaw bi mu génnee euh, ci teg loxo gi nga xam ni tegoon nañ ko ko loxo loolu nag tey sabab waxtaan wi ñu euh, bëgg am ak moom ngir dellusiwaat ci xew-xew boobu waaye itam jàngat tolluwaayu mbirum terrorisme euh, ci àddina rawatina ci réew mi di Sénégal imaam ñu ngi lay nuyu di la dalal ci dem ak tey am mbégte lool sekk ak yow waxtaan wi waa kay jërëjëf soxna si ñu ngi lay nuyu di la wax ne asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu. waaleykum salaam. di jiital bismillahi rahmaani rahim alhamdulilahi rabbil alamin. Mm-hmm. allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyina muhammadin wa ala alihi. di nuyu nag mbokki auditeurs yi yëpp ci biir réew mi ak biti réew mi. ñaan borom bi tabaraka wa taala mu def ko ci réew mi def ko ci àdduna bi mm-hmm. mm-hmm. amiin lépp loo xam ne itam luy tiitalu askan yi la yàlla jeexal ko takk ci àdduna bi yàlla mën na ko yomb na ko yàlla na ko yàlla def amiin amiin imaam ni ma ko waxee ëllëg caltina ji lay doon ñetti at ginnaaw bi ñu la teggee loxo ginnaaw it ñetti at yoo xam ni euh, téye nañ la ko euh, ci wàllum terrorisme ndax mun nga ñëwaat ci xew-xew boobu la waraloon ñu teg la loxo ak lan la ñuy joxe woon niw lay waaw jërëjëf soxna si kontaan lool ci laaj bi ndax waxtu wi nga ko defee mooy ku ne xam ne ne ëllëg mooy ñetteelu at bi comme ni nga ko waxee. bu mm. euh, nekkoon benn xew-xew boo xam ne lëmbee woon na àdduna yëpp euh, daanaka su ma yeboo ne amul benn réew. Mm. amul it benn journal ci journal yi nga xam ne danay génn ci àdduna bi. Mm. lu dul ne ñu ngi doon topp di yittewoo euh, mbir moomu. muy journaux yeeg réseaux sociaux yeeg ci gàttal amul lenn luy joxe xibaar ci mm. àdduna bi lu dul ne euh, nekkoon nañ di yittewoo xew-xew boobu. Mm. mu nekkoon na xew-xew boo xam ne amplifié woon nañ ko réer ko lool fa la mm. ba daanaka sax mën naa wax ne terroriser euh, sunu mbokki sénégalais yi yëpp. ba kenn ñemewu cee wax. wala ñu néew boog ñoo ci a wax. muy jàmbaar yi nga xam ne xàmmee nañ dëgg ak neen Euh, di ci rendre hommage nag ñen ñi ci euh, suñu wëllëre sunu mag Sidi Lamine Niass yal na yàlla subhanahu wa yokk ay leeram sa bàmmeelam bokk sëñ Bamba Ndiaye ak ñeneen ñu mel ni ñoom waaye dama jàpp ñaar ñooñu rek comme ñoom ñu jiitu di leen ñaanal mm. ak suñu mbokk Saliou Sow mm. ak ñeneen ñu mel ni ñoom ñu bëri euh, suñu mbokk soxna sa Zeynab mm. tabaal ma nag soxna si xam naa maa ngi xaw a dem ci loo xam ne du laaj waaye dafa du lu mënta ñàkk. amul solo amul amul benn. ñu mbokk Zeynab Fall yal na yàlla dolli seen leer ñoom ñëpp dañoo jiitu moo tax ma ma ràññee leen. dëgg la dëgg la dëgg la ak nag mboolem mboolem jàmbaari diine yi nga xam ne ñu ngi ci biir réew mi. Mm-hmm. Eh, di dund ak ñun. ci organisation islamique yeeg tariqa yeeg ñëpp fa tabarakallah mujj gi dem nañ ba xam ne lii ndeke ni ko doon waxe Euh, ak nam amee soriwoon na lool. Mhm. ñu sumbandoor na xeex bi ak yéen ñi nga xam ne yéenay journaliste yi. Mhm. def ci benn liggéey boo xam ne bu mucc ayib la. man mhm. euh, nañ ko tuddee ne contre révolution contre révolution lañ ko tuddee woon wala contre révolutionnaire yéen ñi nga xam ne yéen ci doon taxawee. ndax benn mbir bu yëkkati woon ngeen dem topp ko gëstu ko saytu ko ba xam ne lii ni ngeen jóg ànd ak activiste yi. mënuma tudd nag benn activiste bàyyi ba ci def ndax bari dañoo bëri. waaye fa tabarakallah xew-xew la boo xam ne euh, yéeme na soxla si. Mm-hmm. duñ dañ nag di ko fàttali ko. Mm. bu ko defee nag la nga xam ne mooy sabab bi moom nga ma laaj. Mm-hmm. Euh, sabab ba ba tey jii mbir la yoo xam ne yu yu fulul la. Mm. yu fulul la yu lëndëm la ndax man nii di wax ak yow de euh, ba fii ma toog. Mm. damay toog di xalaat ci lan moo sabab lii. mu dama jaaxal waaw ba yàlla xam na ko ba fii ma toog nii. Mm-hmm. dafay toog léegoo léeg di xelaat waaw lu toll ni état ak euh, li ko yàlla jox ci euh, renseignement mhm. euh, yu ko nekkal partout ñu ñuy jékki-jékki rek dugg ci benn mbur boo doo xam ne nii la lëndëmee mhm. waaye nag bi may liir di liir ba àgg ci Jeune Afrique mhm. gis mu bind moom Jeune Afrique ba ma ko gisee sax dama ko jox samay samay avocat ñoom ñëpp tabarakallah pool d' avocat bi nga xam ne ñu ngi may déglu. Mm-hmm. Ah, maître Moussa Sarr suñu jarbaat jiite woon leen. Mm-hmm. wallaay ndeysaan muy nekk ay jàmbaar yoo xam ne man ci laa demee ba découvrir lan mooy métier avocat. Mm-hmm. Ah, amoon yéene lool ne su ma ay eh, su ma ko mënoon ba delluwaat ndaw comme man défendre dëgg rek moo ma yitteel. gis naa ne dëgg ña koy défendre léegi ñu ko man mooy avocat yi ndax ñoom la ñu xajal ci cour yi. ci tribunaux yi. mais a taxaw di wax plaider. moo tax ma soññu xale yi ne leen métier moomu na ngeen ko gën a yittewoo bu baax. Hmm. pour défendre dëgg. Euh, soxna si bi ma liiree article boobu. Hmm. ci laay door a xamee tuuti ci sabab yi. Hmm. ndax ndax Jeune Afrique dafa bind ne am na benn sëriñ daara bu nekk foofu ci kaw Kaolack. di tuddee boppam ne day jàngale alquran waaye ay quelque xale la yor mbubboo leen. maanaam minimiser lool suñu suñu suñu suñu daara ji. te yàlla xam ne ne daara jii ma yor soxna fi. Hmm. bokk na ci daara yi ëpp yi ëpp euh, nombre ci ci région Kaolack loolu mu yéem ma. fi hmm. mu waxee loolu ne quelque ay xale fa nekk mu latoo leen bu boo leen mu teg ca ne moom waa jooju euh, dafay dafay tukki lu bëri di am ay rapport ak relation ak ñi nga xam ne ñooy terroriste yi nekk ci sous région beeg àdduna bi te man mosuma man tukki du si mbir Hmm, doo tukki. déedéet man du ma tukki maa ngi fii ci Sénégal depuis ma jeexal sama njàng ci Mauritanie ñibbi si. Hmm. dew ma Mali gi gën a jege sama tànk jëm quoi <laughs> te yóbbu nañ ma fi Mali yóbbu ma naa sax ñu ne ministre bi yoroon wàllu googu ca jamono booba. Hmm. wax na ne génn naa lu def naa lu ëpp euh, ñaari téeméeri sorti di ko toog ñoom. dara amu ci wallaay ndey dara amu ci mu jaaxal ma lool. mais yow bi ñu lay teg loxo bi ñu ñëwee di la jàpp si ci ci lan lañu ko teg ba lan nga jàpp ni moo waral dëgg dëgg dëgg xëy na moo sooke mbir mi. Ah, moom laay bëgg a wax ni. Mm-hmm. Jeune Afrique boobu nee na dafa détaché woon benn benn benn équipe spéciale xam ne bi ñu ñëwee fii ci Sénégal dañ leen rattaché ci ministère de l'intérieur Abdoulaye Daouda Diallo moo ko jiite woon jamono booba. Mm-hmm. Jeune Afrique mooy bind li ma lay wax de. nee na ñooñu def nañ fi lu mat six mois di liggéey ak ministre de l'intérieur euh, ci lañ demee nag ba am ay renseignement yu leer ñoom door maa jàpp maanaam teg ma loxo hmm. ma ne kon France moo nekkoon base u téye gi ñu ma téye man nag ma ndax sama samay discours ak samay conférence euh, dafa nekk maanaam mënuma ko tuddee anti système waaye système bi moo nekk anti Aliou Ndao hmm. waaw anti Imam Ndao bu ko defee nag man toujours damay tuddee ne man maay anti système may leen déedéet système bi mooy anti Aliou Ndao ndax yu ndaw dafa nekk ci li ko boromam sant hmm. te boromam moomoom suuf si moom ko moom jaan ñi hmm. kon santaane mooy li am légalité bu fekkente ne nag am na ay force occulte yu bàyyi ko ci bitim réew ñëw lënkaloog ay force occulte ci biir réew mi contre Aliou ndaw kooku dañ koo tooñ ci biir territoire am fi mu juddoo màggee fa yaroo fa di fa jàngale di fa exercer métier légalement tooñul kenn mosta dem fenn lënkaloowul ak benn force boo xam ne bu jaarul yoon la daara jii ma yor nii ngay gis nii ci mbay lañuy dund ak sàmm ñun amuñu financement buy bàyyeekoo ci benn gox. Hmm. waaye nag jaam yàlla yu baax yi tabarakallah yal na yàlla yokk seen man-man. bàyyiwuñ daara ji. Hmm. kon kooku buñ xëyee xëy tuumaal ko ne dafa jël lañ ko loolu yële. Hmm. man dama naan mbir mi France la. ak sunu gouvernement ñooy responsable ñooy sabab yi tax li amoon am. te niñ ko defee itam ñaaw lool ba ca dayoo baax. mën nga caa dellu siwaat bu baax ndax euh, ñu ngi ma ñëwal ay weer euh, deux heures de matin trois heures de matin. dañuy hmm? ñëwee dajji bunti kër gi terroriser xale yi fa tabarakallah. dañoo dajji sa buntu kër. dañ ko dajji. kon fekk lu nga ubbi leen déedéet ndax man dama jàppoon ne ay ay ay ay samba booy. Hmm. ñoo ñëw pour pour pour attaquer kër gi moo taxoon man ma jàpp eh, comme sama néeg dafa nekk ci buntu kër gi. Hmm. ma di am na fu ma leen di xool di leen bàyyi xel. Mhm. foofa laa taxaw toog fa di leen bàyyi xel di ma leen gisee ñu dajji buntu kër gi ma jóg taseeg ñoom. Mhm. ci la ma waaj euh, euh, ne mhm. ma xool liñ sol gis ni dañu ci gendarmerie. keroog sax nee naa leen aw moon si ki sàkk ne ay sàmba booy ngeen. dajji buntu kër gi terrorisé xale yi am na ci sunu màggat mu fa nekkoon ndeysaan gis nga guddi googu ci la ñu ci la doxee teqalikoo sagoom ba nim génn na hmm? waaw xelam fa la doxee rek naaw hmm. àndatu àndatu la xelam ndax tiitaange la ci mbir ak euh, ñaaw teefu euh, lu gis lu mosul gis ndax ki jékki rek ñëw ci borom kër terrorisé ko mënoote hmm. euh, ko ci kanam njabootam loolu histoire du ko fàtte mukk te mu ngi xewee ci régime suñu président de la république Macky ak ministre bi nga xam ne moo yor yoroon jamono booba l'intérieur muy Abdoulaye Daouda Diallo ak ñi nga xam ne nag ñoo saytu woon mbirum renseignement ca jamono booba ba taxawee jëf yi nga xam ne eh, mën nañ ko tuddee ne ay jëfi terrorisme la moo tax man toujours damay wax ne terrorisme am na fii ci Sénégal hmm. ndax man dañ ma terroriser hmm. terroriser sama njaboot terroriser samay am di jàmm terroriser réew mi yëpp nag ba kenn ñi mu ta wax hmm. man jàpp naa ne sabab bi euh, du lenn lu dul eh, discours yi ak kutba yi moo leen déranger ndax am na biñ ma yóbboo cantonal di mhm. ma laaj dama mhm. doon laaj laaj ne ma ne ma ndax bu say mbokk sàkk woon ci yow nga bàyyi say conférence ak say xutba ak say njàngale pour génne la ndax yow dañ ci ànd ma ne ko man aw ma mbokk muy sàkk loolu mhm. ndax sama mbokk yi ma am yëpp métti nii ma métti woo muy jàngale alquran ak yéete ni ma ko apprécier nu ko raw lañ ko apprécier way jëm rek laa bokkal. Hmm. ma dee ci lii moo leen gënal fuuf mën ne damay deltu gannaaw mu ne maa ah, ma ne ko yàlla xam na ko kon moom xamal ne discours bi la moo leen eh, eh, génne. Hmm. daan naa ko wax ne ci biir campagnat ji ko waat ci yàlla ne. Hmm. fii ma toog ci biir campénal su ma fi yàlla la danaa fi continuer di jàllale message bi. Mhm. su ma génnee damay continuer di jàllale message bi. ñu des ci guddi googa mhm. imaam guddi ga gannaaw ba nu la defee noona euh, lan la ñu la wax ndax wax nañ la la tax ñu ñu ñëw ak li tax ñu jàpp si la wala kana leen yónni. waxuñ ma leen. nan laa jàpp rek yóbbu. waaye nag wax naa sama soxna yi ne leen. Mhm. nañ daan jàppee yonent yi di leen solal ngir lan seen mission. yàlla xam na ne mission booba képp ci laa nekk man Aliou Ndao kon gëm naa ne loola mooy sabab bi hmm. xeex alquran ak ñiy jàngale alquran kon booba xamagu leen sax lu xew xamuñ lu xew kenn ci kër gi xamul lu xew hmm. mosuñ maa ma jëf ju ko biyaaree doy na war hmm. noonu lañ ma jàppee ma alors téye ma fa ay fan yu yàgg yàgg yàgg ci façon yoo xam ne. fan lan la yóbbu ñu ngi ma yóbboon ci. naka laa maa ngi fàttali turu gendarmerie bi de. waaye mu ngi foofu ci Dakar rek ñoom xam nañu. du déedéet. caserne na ci uskat bi section de recherche. exactement. léegi bi ñu ma fa yóbboo néeg bi ñu ma def <laughs> néeg la boo xam ne dafa am ay branchement maanaam ay sorte d'enregistrement yu ñu fa te yoo ay salir ay salir lañ enregistré seen seen yuuxu amplifier ko nga xam ne néeg bi amul courant amul dara benn mat la bu bon lañ ko teg bu gat boo xam ne encore mat la bi sax ay cuir la maanaam ay ay mën a cuir sax euh, cuir la hmm. <laughs> ci biir kër bi laa xamee nag ne jóg jot na pour euh, lii nga xam ne man maa ko dund vivre ko léegi loola da doon yuuxu ci sa nopp yi day yuuxu vingt quatre heures sur vingt quatre ci sama nopp yi boole nit bu lëndëm boo xam ne amul dara ci lumière. Hmm? yàllaa ma protéger protégé mënoon naa fa jógee ñàkk ay bët. guddeeg bëccëg ci lëndëm ngay ne. lëndëm ngay nekk ci ci sabi salir yi ngay nekk presque doo doo mën a nelaw loolu ko noonu ma lu ni mel am na ci Sénégal te dañuy wax ne suñu loi bi dafay interdire torture lépp loo xam ne sorte de torture la. ma ne loolu buñ ko waxee bind ko it nekkut ci li ñuy jëf lii moom maa ko dund. Hmm. dañ ci déggee nag ba commencé seen enquête laaj mooy yu bëree bëree bëri mënu ma caa jaaraat euh, liñ ma njëkk laaj mooy ndax xam nga loolu andi fi may leen déedéet waaye moom leer na ma ne rek victime laa kuñ tooñ laa. Hmm. waaw ci lañ ma waxee nag ne ma dañu nekk créé benn euh, cellule fii ci Afrique. pour war a bëgg am mën ay action terroriste mm. ci ab sous région bi ma ay tur mm. loolu day war ma ne leen maa ngi door a déggee loolu ci yéen ñi may enquête xam nga loolu mooy amut mm. sama samay ordinateur rek yëpp yi nangu woon def nañ ci gëstu gu nekk ñoom waaye mënuñ laa won benn trace boo xam ne am na sama diggante benn coté buy mën a action terroriste mm. heureusement alhamdulilah rabbil alamin sama lépp dafa leer. Mm. Mm. ñu ne it fekkoon nañu ci yow ngànnaay fekk ci yaw téléphone cellulaire ay ay film terrorisme ak ñoom seen ci sa ordinateur loola yëpp déggoon nañ ko fi ba ñu bari jaaxle woon. ñu bari woon dara amu ca. am naa nag comme man en tant que damay gëstu. sama ordinateur damay gëstu gis ngeen ñi ma doon gëstoo ñi nga xam ne ñooy terroriste yi. Mm. di ci ñoom noonu laa doon gëstoo mbirum Borma noonu laa doon gëstoo suñu mbir yi nekk fii ci Afrique ci sous région bi. Mm-hmm. ba fële nga xam ne mooy nu mu tuddati Centrafrique. Mm-hmm. fenn fu ci nekk dama ko wutal rubrique ak ñaawteef yi nga xam ne état yi ñu ngi koy def. Mm. yooyu moom lañuy ñuy tuddee ne ay dañoo fekk ci man ay film moo tax keroog bi may laaj ci biir euh, projet bi. Mm. ne ma ndax mën nañ teg lenn ci film yi ñu fekk ci sa ordinateur. may leen yan yan ngeen bëgg teg ñu ne may yi aju ci wàllu Daesh may leen su ngeen paree dangeen ngeen teg yi aju ci wàllu Burma. Mm. su ngeen paree encore da ngeen teg yi aju ci wàllu Centrafrique. Mm. bu dee loolu bismillah ba ñu xam ne man sama gëstu dafa général mhm. en tant que jàngalekat en tant que conférencier mhm. koo xam ne dañuy koy laaj muy tontu mhm. war na documenté wu ci lépp luy daw ci àdduna bi voilà le problème lu aju ci wàllu ngànnaay beeg bi yëpp ay sos la <laughs> yëpp ay sos la ñemewu ñoo génne ngànnaay ba ngànnaay ba benn pistolet bu yàqu la boo xam ne ñu ngi ko jëlee ci sama euh, euh, euh, pañe bi may def ci biir bi nga xam ne lu ma nangu ci xale yi ci laa koy sànni jëlee wuñ fa fital jëlee wuñ fa satellite boobu ñu tudd cellulaire bi. Mhm. mos mosuma ko am. somme yu colossaux yooyu nga xam ne colossal yi nga xam ne waxoon nañ ne maa ngi ci ci xaalis. Mhm. jëlee lañ fa jëlee lépp daal matul trente mille. Hmm? Ah. waaw moo tax bi ma déggee ay milliards même bi ma demee ndeysaan ci euh, rëbës ñu bëri dañ ma jàpp woon comme milliardaire boo xam ne. <laughs> jàpp ni jeexaloo dara. dara lay ndeysaan moo tax man film bi def ma ñëpp mais nag histoire dana ko retenir te yaakaar naa ay mbind yu bëri dana ci wàcc ca kanam incha allah. Mm-hmm. yoo xam ne danañ ko euh, garder pour euh, future génération yi ñëw. Mm-hmm. ba nga xam ne Sénégal jaaroon na ci étape bu mel nii. Mm-hmm. waaw incha allah. imaam ñetti ati kaso yi noo ko dundee. waaw sant yàlla nag ndax ñun comme dañoo jàng diine di jàngalekat yi diine. Euh, lenn duñu bett ci loo xam ne lu ñuy dal ci yoon wi la dañoo doon ñoo xam ne ñoom la yàlla yónni woon ñu doon leen tuddee al anbiya wa rasul di yonente yi salawaatullahi wa salaamu alayhim ajmaïn gis nañ ñu daj ci ay coono ñenn ñi dañ leen a rey ñenn ñi ñu dagg te leen sax reyin ji gën a ñaaw mm-hmm. ñenn ñi ñu lakk leen ci sawara ñenn ñi ñu tëj leen bañ dee mm-hmm. ba mu jeex ko defee kon ku doon ñooña mm-hmm. Euh, yu mel noonu dañ koy bàyyi xel. daan hmm. naa ko wax lii dal sa kaw. bu baax bu baax bu baax bu baax dama ko doon wax sax sama njaboot. Hmm. yàlla xam na ko. néeg bi may wooyee nii soxna si nga xam ne ci ci ma fekk ci léegam. Hmm. daan naa ko wax ne ko man bëgguma miinal sama bopp dara ci xeetu luxe. ndax damaa jaar ci yoonu ñoom imaam Ahmad ibnu Hanbal. ñoom yoonu imaam Malik rahimahullahu tabaraka wa taala. ñi nga xam ne dañ leen a tooñoon. xëy xëy takkal leen ni pot tij leen ci kaso di leen portier mu ne ma ne ko damaa war a miinal sama bopp coono ba ëllëg su ma àggee ci état bu mel noonu. Mhm. fekk na sama jëm man mii tàggat naa ko. da mhm. na moo tax amoon benn problème. Mhm. am na benn psychologue mu ma mos ñëwal. xam naa pour seet tester sama moralité ba xam fu ma fu ma toll. foofa ca kaso ba waaw ca kaso ba foofa booba maa nga ñun seeti jàpp ma tur woon nag bi ñu waxtaanee mu di ma laaj pro samay problème baa aw ma problème psychologique yi demee noonu ma ne ko man mënu ma am problème yooyu. Mm. ndax dafa am ñaari facteur yoo xam ne mu ne ma ne ko ñoo may protégé. mu mm. ma ñaari facteur yooyu ban la ban ak ma ne ko bi ci jiitu mooy damaa gëm dogal. Mm. naa ne lépp lu yàlla dogal ci dundub imaam Aliou Ndaw ma ne ma faaw moom. ab julli nag mu ne mu ne ma ma ne ko du xëccoog yàlla ci dogalam da koy nangu. Mm-hmm. moo tax ñun. waxuma la nangu dogal bi sax waaye dañ ci am satisfaction. dañ dañ ci kontaan ci lépp loo xam ne suñ borom dogal na ko ci suñu dund. loolu mooy arriba bil bi mu ne maa ma ne ko euh, diina daf ñu jox ngànnaay bu mag bu ñu tuddee asabru gij ñu ci ay tiyaabu yu rëy euh, muy muñ patience endurance mm. moo tax lépp lu dal ci suñu jëmm mu ne ma ne ko attan ah, nañ ko ma ne ko nag am na nag beneen ci facteur bu ëpp ci solo mu ne ma ma ne ko mooy di xaar ngërëmal borom bi tabaraka wa taala ak dajeeg moom am payam muy aljanna yàlla ñu ko yàlla wusal ñu ñëpp moo tax ma ne ko ñun am problème te maa ngi wéttali ko fii ci kaso bi mhm. nit bi ma nekk man rek maa fa nekk mhm. waaye maa ngi wéttali ko ah, dañ laa beroon dañ ma ber dañ ma ber man rek ak sama cellule mhm. cellule boobu xam naa dinañ ci ñëw ci kanam. néeg ba waaw ko moom kay dañ ciy des néeg ba nu mu meloon gannaaw ndorteel ga euh, na mu doyee woon waar euh, ñu njortu ne xëy na foofa it yombutoon. déedéet ñu mosul yomb ma ma ne troisième ma ko ne ko mm-hmm. euh, foofu ma ko doon waxee man ne ko damay damay wéttali sama borom ci biir cellule bi. Mm. man gëm naa ne maa ngi ànd ak moom fu a mën a nekk. alam tara anna Allaha ya'lamu ma fi samawati wa ma fil ardi ma yakunu min najwa thalathatin illa huwa rabi'uhum wala xamsatin illa huwa sadisum wala adna min dalika wala aksara illa huwa maahum aynama kaanu ma ne ko fu mu mën a nekk rek maa ngi fa nekk ak sama borom yàlla mu ma ne ko nag wéttali yëpp moo ci gën a neex boobu moo ci gën a mag bi maa ngi wéttali ak mbooleem koo xam ne ku baax la muy malaaka ya nag di ñu baax ñi fi jiitu woon ñëpp maa ngi wéttali ñoom fii ci biir cellule bi mm. te maa ngi wax ak sama borom vingt quatre heures sur vingt ndax maa ngi kaamil boo xam ne jamono bu nekk waxi borom bee ci nekk su ma mhm. waxee mel na ni yàllaa wax mhm. ci kaddu borom bi lay wax muy dugg ci sama xol bi di dugg ci sama xel mi ma ne ko ah ma ne ma ne ko kooku mënul wéet mënul am problème si <laughs> psychologique. boobu ku ko yebal. waaw moom nag nee na ma dafay liggéey ak état ñoom dañu yor prison yi di wër mhm. euh, prison yi di waxtaan ak détenu yi. d'accord sama genre bi. xam naa peut-être ci cadre boobu la fa ñëwee. léegi ñu ñëw euh, ci condition détention bi néeg ba fañ la dencoon voilà néeg bi ñu ma dencoon soxna si dafa dafa comme bi ma li ma la wax noonu ci gendarmerie mhm. néeg bi ma nekkoon ni dafa amaat ay euh, ay façon enregistrement yoo xam ne dañ ko def ñoom préparé ko lu yàgg waaw hmm. ah, lu yàgg sax daf ma yéem sax euh, daf ma yéem enregistrement samay jaar-jaar yu bëree kon yàgg nañ laa topp. yàgg na lool ay ay at yu yàgg la am na ci yuñ ma tegal yoo xam ne bi ma ma koy bi ma koy déglu dafay ñibbiwaat ay weer mille neuf cent quatre-vingt-treize. Hmm? waaw quatre vingt jamono boobu ci la ci laa doon dox pour ñu créer eh, jamaatu ahlul Qur'an al karim wa sunna pour def suñu daara yi benn mbootaay. Hmm. yañ ci daan def ak yépp dañ ma koy tegal samay conférence surtout nag conférence yi may def sur la laïcité et sur la franc-maçonnerie mondiale di ca teg nag kàddu yu gën yu ko gën a ñaaw loolu da ñu ngi lay te torturer kon psychologiquement beneen bi ci gën a yéeme mooy néeg bi dafa amaat euh, gannaaw enregistrement yooyu euh, xeetu yoo xam ne dañ ko dañ ko dañ ko jokkale ak néeg bi saa yu leen neexee rek ñu pomp ko ci biir néeg bi kenn du xeetu yu bon a bon a bon yoo xam ne mar d' itali. genre tuyau moo fa nekkoon kon. déedéet doo mën doo mën a xam fu muy bàyyi ko. Hmm, da ngay jékki rek xet gi jolli. jolli ci biir néeg bi gas ko del bi ma nekkee ndar def nañ ko ba jour boo xam ne weñ yi ak seen bopp dañoo dee ci biir néeg bi bëri. Hmm? waaw bi bët setee ma xool weñ bi ñu ngi ñu ngi faam. waaye nag euh, comme am na direction ma woolu directeur mu ñëw astafirullah dama ko woolu ñu ne ma dafa tukki. Hmm. nekku fi ma balayee weñ yi yëpp dajale ko ci benn AGT teg yendu weñ yi deewaat deewaat ba ngoon ma delluwaat balewaat yëpp defaat ko ci AGT teg le lendemain weñ yi gën a dee hmm? te booba yow xet gaa ngi lay xeeñ waaw maa ngi ci néeg bi xet gaa ngi dolli xet bi xetu mu lan lay nuru kenn xamul ban xeetu xet la xam naa ne moom xet bu ñaaw la bu bon la boo xam ne dañ koy pomp ci néeg bi bi bi directeur ñëwee ca gannaaw ëllëg sa ñu woor ma mu ñëw ma génnee weñ yi yëpp woon ko ko hmm. sàkku ci moom nag ne ko weñ yi dama bëgg ñu yóbbu ko def ko ci laboratoire seet ba xam lan moo leen rey hmm. mais ba fii ma toog ak yow dara amul suite hmm. ñu may déglu bu baax xam nañ ko booba wàcc naa ci guddi gi wàcc yoo xam ne am na benn détenu boo xam ne maag moom ñoo fa bokkoon nekk ci mhm. ñoo takkaloo néeg bi mhm. man rek ak sama néeg mhm. waaye moom mu ngi nekkoon takkaloog man beneen néeg suñu xale la bu ñuy wax Baye Saliou Ndiaye euh, wàcc moomu dal ci sama yére yépp yëpp moom lañ moom moom moomu ko doon fóotal moo tax kooku moom nekk na ci benn témoignage témoin boo xam ne bu bu bu bu fataan euh, bi directeur bi ñëwee mu woon ko weñ ndeysaan mu ne ma moom lii daal xamut naka la xamut xamut dara. Hmm. man nag xam naa ne euh, mën na nekk mën na ñàkk a nekk ndax mën nañ am ay éléments yu leen di defal luñ bëgg ci biir prison bi ci directeur du ko xam. du ko xam. waaw hmm. oh, loolu c'est bien possible. yow da ngaa jàpp ne dañ la doon bëgg a rey ni ñu ni ñu ni weñ yooya deewee. ah moom ci sikki sàkk man. xet ga sonaloon na la. ba mu ëpp. directeur bi ne ma est-ce que duwul ne néeg fi nga takkalool nii dafa am euh, douche douche boobu mën naa am xet gi mooy ñëw mën na ko douche mu ne ma mën na ko weñ gi foofu la ñuy dund. Mhm. weñ douche rek la bëgg. waaw xetu moom. mën na ko xetu douche rayul weñ mu ne wax nga dëgg de yéeme na daal loolu nag bokkul ak euh, torture beneen boo xam ne ay wax la yu ñu lay wax ngay dégg di la saaga foofu laa mën a gisee ñoo xam ne ñoom saaga rek la def. ku la doon saaga mënoo leen a gis. ah doo leen gis. déedéet dafa am benn communication boo xam ne ñoom ñoo ko préparé néeg bi diggante néeg bi ak beneen mbooloo boo xam ne mënoo leen gis. Hmm. waaye yow loo wax ñu ngi koy dégg ñoom it ñuy wax yaa ngi koy dégg. ah. waaw wax bu ñaaw bu sa xel daj rek. Eh, daf da nga koy dégg moo tax bi ma génnee <coughs> gis euh, whatsapp yi xew réseaux sociaux yi ñu ciy saaga ay ay responsable laa ne waaw. maa lii du ne fay fayu goo xam ne yàlla moo koy fayul ay gaayam la hmm. ndax gannaaw bu ma génnee la phénomène non ci biir sax la phénomène Assane Diouf xew hmm. ndax dégg naa Assane Diouf moom moom itam daanaka ci sama mbir la doon wax hmm. di ci révolté ndeysaan di ko ñaawlu dañu mujj ko yàqal liggéeyam jëlee ko Amérique andi ko ba tey mu ngi Sénégal ko terroriste ma waaw mbaa du saaga yu ñaaw yi ma doon saaga ci biir euh, barab ba moom la yàlla jël ay xale samp leen ñoom itam ñu taxaw temm rek pour delloo saaga yi te yëguñ sax ni xaw yëguñ sax na ñu ngi may saaga waaye mbirum suñu borom rek ci la soxna si. waaw imaam ba nu lay saaga ak di la wax wax yooyu yow loola noo ko dundee. kilifa gu toll ni yow hmm. loolu man ni ma ko doon tuddee rek benn ba ci ñëpp mooy nattu la ñaareel bi mooy euh, bëgg nañ la torturer psychologiquement pour nga nga perdre sa sa connaissance. Hmm. mu ji soppeeku ab dof. mosoo craqué mosoo dem ba sa xol jeex ba nga sës. jeex na voilà. Hmm. fekk na nag xolub jullit moom dara mënu ko jeexal. ma soo craqué kon yow mosoo dem ba yëf yi daal jàpp la. déedéet déedéet amuloo ko paal daf may def sax man. Hmm. te léegoo léegi nag da tëdd nii bëgg ay trois heures de matin. nga jékki-jékki dégg ay ganaar yuy sab ci sa pegg sa njëganaay bi. Hmm? waaw léegoo léeg bu ñu dindee sabu ganaar bi mën nañ indi beneen beneen sabu maanaam lu mel ni ab dawkat. xam nga loolu buñ la koy def te xamuloo fi technologie toll bañ waaw hmm. ak fi technologie toll ak niñ mën a canaliser kàddu hmm. di ko teg fu leen neex yow moom yaa ma gën a xam loolu waaw xam nga ne kàddu mën nañ ko jël yebal ko hmm. mu dem ca miir ba su leen neexee ñu yebal ko mu dem ca sa gauche droite ba tegee ci sa dënn loolu boo xamul da ngay jommi léegoo-léeg mu mel ni ay picc yu bari lañ yebal wala jékki-jékki mel ni benn bomb lañ taal ci biir néeg bi fekk li ak ñu ne loolu nag bokk nag rayo maanaam ay rayon yoo xam ne dañ koy yebal vingt quatre heures sur vingt quatre ci sa jëmm ci rayon wi lan ay rayon yoo xam ne électrique la ay coup électrique yu ñu lay dóor muy xonq ci sa kaw muy dal dal ci sa kaw gis nga mbaxana mu weex bi ma doon sol ak kaala gi hmm. euh, dafa mujj dem ba mujj xonq coy hmm? loolu lu bizarre la lu bizarre la te la ma la ma yóbbee loola mooy biñ ma yóbboo campenal deux jours yu njëkk yi sama bopp bi dafa ko àttanut demoon naa ba daanaka xaw a jaaxle mënatuma lekk sama xel na yar ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bi nekkee ci tàngooru nit ma mhm. doon jëlee ndox di ko di ko sotti ci kawam suñ demee ba mënatu ñu ko koy sottil mhm. sama xel daj loola ma gaaw jël sama taala ak mbaxana mi tooyal leen mhm. takk ko ci bopp bi booba bopp bi boo laalee day mel ni dañ ci dóor xeer day day tal day tar mm. mais bi ma ko ci fekkee benn fan ñaareelu fan ba yëgatuma dara mm. ma ne alhamdulilah moo tax diiru li ma nekk campenal ma xam ne mi dama koy tooyal kaala gi dama koy tooyal mbubb mi may sol dama koy sotti ndox mm. damay xooj ci ndox sol ci néeg boo xam ne yow rek a fa nekk waaye mbubb mi dana dana wow ci sa kaw ñeenti yoon ba juróom xam nga loolu lu yéeme la mm-hmm. liy wowal mbub mi lan la ma jàpp ci sama xel ne xam naa rayon yi waroon a dem ci sama yaram moom mooy far yam ci mbub mu tooy meeg kaala gu tooy gi hmm. loolu moom mbirum suñ boroom rek rek rek rek rek rek rek la. mbaa imaam sa wérgu yaram boobu ba tey amul njeextal bu ci yooyee am. dooy toog tey ñetti at gannaaw ngay yëg loo xam ne daawoo ko yëg balaa mbir mi di dal ci sa kaw. waaw damay damay yéemu ndax gis nga bi may dem sama waa kër yi. Hmm. li leen tiitaloon mooy comme man dama daan sibiru ñaari ñaari yoon par at. Mm-hmm. loolu tiitaloon na leen trop te sama sibiru daraan métti. boo fa feebaree ñuy xalaat. ñuy xalaat mais diiru li ma nekk ci seen loxo sibiru ma. Mm-hmm. ñetti at. ñetti loolu moom daf man man la ñu gën a yéem ba fii ma toog ak yow nii aw ma benn problème maa ngi sant sama borom bu baax di ko gën a sant tey ñaan nag sax ci cant ba bañ koy wuy mm-hmm. yii nag boo gisee ma di ko wax. Mhm. saa yu ma laajee ma sabat compte ci. Mhm. mooy dama xam ne li ma dal mën na dal ay xale yu bari mën na dal yeneen yi ndaw yu bari mhm. ay mag yu bari bu boobaa ñu ne ah fii kat jaarale woon nañ fi du sàngam. déglu na déglu woon naa ko bañ koy torture mu jéemoon mu jëloon matuwaay bii ak matuwaay bii. Mhm. moo tax yooyu dama koy wax pour mhm. vulgariser ko. Mhm. ëllëg kuñ dugal ci euh, torture yu mel noonu. mu jël matuwaay yu mel noonu te gën a wéeru ci boromam. cosaan lépp nag mooy wéeru ci sa borom rek. am na solo euh, euh, ñetti at imam procès jaar na fi ñu àtte la ñu bari it ñëw ca àtte ba déglu la ndax mën ngaa dellusiwaat. ngir ñi nga xam ne jotuñu la woon déglu la nga fa wax dégguñu ko euh, ca mm-hmm. lañ la doon laaj ak lañ la doon tontu ak na procès ba demeek na mu jeexee procès bu yéeme la ndax gis nga bi ñuy njëkk bu njëkk bi mm. nga xam ne ki nga xam ne moo yor wàllu mbind mi liñ bind yëpp li juge d'instruction joxe yëpp mooy jóg jàng ko mm. ñu kenn ku nekk ñu wane la tax ñu ñu téye ko mm-hmm. accusation yi keroog man biñ may jàngal sama sama sama wàll man. Hmm. dama toog toog ba ci tamit ma ne waaw est-ce que Aliou Ndao bi ñuy wax ak ji benn la. man la est-ce que man la ndax li muy wax xaw ma ci dara. Hmm. waaw da wutal nañ la sëfoor bu sant fay wutal nañ la ay barab yoo xam ne dem nga fa ci ay réunion yaa ko jiite bu yóbbu nañ soo dem. déedéet moo tax ma li muy wax est jaawale wuñu Aliou Ndao yi. ndax jaawale wuñu àll yu ndaw yi <laughs> loolu mooy li ma jëlee njëkk yéen ci projet bi gis keroog bi ñu jàngee sama paar man ba nu ba noppi mm-hmm. xam naa ne mbooleem ku fa teewoon tiit na ndax lan gravité accusation yi xam ne moom lañ ko ci ñëpp a ñëpp ñëpp a mm-hmm. man keroog laa gën a dal ndax xam naa ne yàgg yàgg dinañ ma taxaw loo wax la ma mm. bu keroog yee insha allahu ci ndimbalul suñ borom mu bu ma bàyyee sowam xel. Mhm. ak ndimbalul ñii nga xam ne ñoom laa bokkal dossier bi muy avocat yi te xam naa ne ñu ñu aptu lañ. Mhm. te li ma gën a yéem nag ci avocat yooyu dañ doon liggéey béné bénévolement vraiment seen mbir yéem na ma. Mhm. ñoom Babacar Ndiaye ñoom Maître Cissé ñoom Maître Sarr ñoom. Eh, ndeysaan man mënuma jàpp si. ñooñu ñëpp fayoo leen. dara. bénévolement loolu nag nit ñi dañ ko war a xam. waaw loola jar naa wax. vraiment benn pool d' avocat boo xam ne. ak seen qualification professionnelle na mu na mu màggee. Mm-hmm. ku ci taxaw wax rek nga xam ne kii ci ci ci xam-xam lay def. Mm-hmm. non yéeme na waxuma la fayoo leen waaye gis nga am na ci ñoo xam ne li def ci man. Mm. jël seen alal di ko def ci projet bi suñ la ko tuddoon nga yéem. Mm. wallaahi ndeysaan waaw ñoom daal mbir mi ca laa xamee nag ne Sénégal gii. Euh, am na yaakaar ay jullit ñu fi. am na nit ñu baax moo tax man aw ma déception de. Hmm. ba tey jii dama gëm ne Sénégal incha allah mën na delluwaat ci loxol lislam hmm. mën na delluwaat ci loxol njub bu soobee yàlla. ndax cadre supérieur yu toll noonu yor xam-xam yu toll noonu xëy xëy mën a jël benn engagement. Hmm. ci benn procès xam ne kii victime la dañ ko bëgg a victimiser. ñu jël seen temps jël seen xam-xam jël seen am-am jël seen man-man lépp def ko ci. ngir yàlla. ñooñu kenn sikki sàkkawul seen gëm yàlla subhanahu wa mhm. su defee kon léegi ci gàttal projet bi mhm. nit ñi noonu lañ ko toppee di gën di ñeme activiste yi di gën di ñeme mhm. ñoom Karim Xrum Xax ak ñi leen doon jàppale nitu dëgg yi ba ñoom Omar Sarr fa tabaarakallah ku lim jum bëgguma lim daal dama dama waaw ndax boo limee rek da nga jum waaw léegi kañ lañ la tàmbalee nag yow laaj kañ kañ lañ la jox kàddu voilà bi ñu demee nag ba Euh, pare ci jour boobu dañu dañu ne léegi suñu mbir dañ koy aj yàpp man kii mu ma nag malheureusement dat yi dat yi ko mais daal ak lu mën a xew rek woo nañ ma taxaw naa laaj nañ ma juge yi déglu nañ ma heureusement ki ñu ñu ñu doon déglu ñoom itam ñu ñu ñu ñu wute nañu lool ak ñu doon bind ci ñun. Mhm. wute nañu lool ak ñu doon bind ci ñun. justice bi am na loxo lu ko ñu muus di ko jox ñu ko neex. waaye juif yi nag am na ñoo xam ne kenn mënut leen a eh, teqale mm-hmm. ak seen ngor ak seen diina mm-hmm. heureusement tase nañoo ak juif mel noonu ci projet bi mm-hmm. ñu taxaw taxawaayu gor taxaw taxawaayu patriote eh, bëgg seen réew bëgg seen doomi réew xam ne lii ay sosi kese la vraiment ñu àtte mi teg ko ci kaw yoon ñoom juge eh, Samba Samba Samba Touré la yaakaar naa Samba Kane Samba Kane ak ñoom Jus Diop ak euh, seen ndaw fàttali naa tur de. Mhm. Euh, ñooñu daal fa tabarakallaa jazakumullahu xeyran yal na yàlla fayal leen gën leen a yokk ngor gën leen a aaral seen pas-pas mhm. ba kenn leen mën euh, ba bi ngay ñëw ci procès bi yaa ñu la doon def dakkul wala arrêté woon nañu ko bala ñu lay tàmbali àtte mosul arrêté ba jour bi may génn mosul ba jour bi may génn loolu lu ma yem la. saa yoo delloo ca kaso ba rek yëf yi tàmbali. tàmbali non na war te loolu wax dëgg yàlla euh, ñu ngi koy def nag au nom de tous les sénégalais yow moomu. Mm-hmm. ak man ñii di wax ak yow. ak euh, suñuy njiiti diina suñuy xalif généraux. Mm-hmm. population bi yëpp ci seen tur lañuy ñuy mënee acté mel noonu loolu nag dafa dafa nekk loo xam ne dañ ko war a xam bu ko defee kenn ku nekk xam ne ah lii ndeke mu ngi am ci sama réew am na nag loo xam ne constaté naa ko ci barab bale ma njëkkoon a jaar muy rëbës wallaay ndeysaan dañ ma gis xale yoo xam ne boo waxtaanee ñoom dañ naan la ñun néeg yi ñu nekk la fa nekk ci nombre bi dafa surchargé ba ñoom amuñu possibilité tëdd ci suuf sax mm-hmm. ñii dañuy taxaw ñii toog ñii tëdd ñu ñi alterné bu ci kanamee ñi taxawoon toog mais vraiment ci ay conditions yu inhumaines hmm. te loolu yëpp ñu ngi koy def ci turu sëriñ si nag yéen sëriñ si yëpp na ngeen ko dégg hmm. seen tour ci la ñuy defee acte yu ñaaw yooyu yéen taalibe yi ci seen tur la ñuy defee acte yu ñaaw yooyu yéen jàngu bi yéen bois sacré bi ci seen tour la ñuy defee acte yu ñaaw yooyu ndax yéenay sénégalais yéen a délégué seen pouvoir jox ko ay nit ñuy def ay nit yu mel nii moo tax man damay wax ne ñoom Ibrahima Sall ñooñu seen mbootaay gi hmm. bis dana ñëw incha allah yaakaar naa ñu bëri danañ ci jàpp euh, de passage maa ngi maa ngi méttitlu di di di sama mbokk yi nga xam ne ba tey jii ñu ngi ci kaso bi hmm. ñu woon leen terroriste ak ñi nga xam ne ñëpp ay hmm. nekk ci biir kaso bi de passage nga baal ma ma ma ma ma ma ma ma sawu leen coono yi nga xam ne moom lañ nekkee ci biir kaso yi te malgré loolu yëpp ñu nga garder seen diine ndeysaan am na ci ñu ñu wax ne nag la leen tuumaal moom fu wér la tegu de. waaw man de wax dëgg yàlla ñoom ak lu mën a xew. Mhm. xaw ma leen. Mhm. ñun ñëpp xamante wuñu. xamoo leen kon. déedéet am na ci daal xale bu ñuy wax Baye Sall. Mhm. maag moom sunu kër yi benn la moom bàyyi nañ ko am na ci ku ñuy wax Ibrahima Anne ci sama jàkk lay jullee ba dem ba àjjuma ji passé rek ñoo bokk julli. ñoom dama leen a xam bu baax am na ci xale bu ñuy tuddee Maxtaar Jaay na ñu ne maa jàngal. Maxtaar Maxtaar Joxaane Joxaane waaw kookoo ci bokk na ci ñi ci gënoon a fës sax. voilà ñu ne sama la bi maa ko jàngal. ay neen yi kese la. Hmm? ay neen yi kese. ñi ci des nag xaw ma jege na far ñoom ñëpp foofu lañ xamante ci biir. ñoom Alioune Badara Sall ak ñeneen ñi ci des yëpp. moo ne defoon ay link de ci seen diggante ba wax ni. waaw waaw ñoom ñëpp nee nañ fii lañ jaar ci hmm. jàmbur gii nga may wooye maa ngi jàmbur actuellement ci tool bi. fii lañ tuddee woon ne mooy camp d'entraînement bi bu ñuy dem ci la ñuy jaar. mooy base bi mooy base bi <laughs> yéeme na trop. maa ngi leen di masawu coono di masawu nag sunu mbokk ndeysaan Pape Ndiaye. Mm-hmm. day seet. Mm-hmm. di ko muñ loo ndax moom itam jaaram foofu man dama naan baax na de Pape Ndiaye boobu. Mm. jaaram foofu baax na lool ndax gis naa ne xale la boo xam ne bu. bëgg réewam. muy mhm. xeexal réewam. Mhm. buñ ko terroriser moom itam jaarale ko ci kaw yu mel noonu. Mhm. bu génnee dana gën a xam combat bi. et eh, importance bi am. dana gën a dëgër. dana gën a dëgër incha allah. alors ñu ñëw ñu des ba tey ci procès bi imam euh, keroog ba nu la dégloo ba yëf yee jeex ba nu ne ba la ñu la tuumaaloon yëpp rot ban yëg-yëg nga am. yëg-yëg bi ma njëkk am mooy gëm ne suñ borom ma aaroon yonent yàlla Ibrahima ca sawara wa ba tey jii moo fi nekk ngi aar ay jaamam te dafa jóg mukk yëg-yëg boobu moo gën a dëggu ci sama xol keroog ñaareel ba ma amaat yëg-yëgu euh, yëg-yëg boo xam ne bu bees la bu gën a màgg ci sama xol ba fii ma toll nii day gën a màgg ci sama xol mooy appréciation boo xam ne apprécier naa ko xolu maanaam taxawaayu sénégalais yi sénégalais yëpp nag vraiment ci engagement ak détermination ñu yàq seeni nelaw yi ñu gëdd seeni i projet bi dafa duré lépp ñuy gëdd seeni i poos di ko ci def mhm. lum sedd sedd sedd ñu ngi ñëw am ñaareelu yëg-yëg moom mooy boobu mhm. yëg ne am nañu type de citoyen boo xam ne yal na yàlla gën leen a sàmm gën leen a aar te yëg-yëg boobu mu gën ko fortifier ci seen i xol mhm. dañ mën a nekk ay dëggi dëggi patriotes yoo xam ne danañ taxaw incha allah pour l'injustice ñu ànd ñun ñëpp nettoyer ko fi jëlee ko fi wàccee suñuy responsabilité suñ digganteeg euh, Allah la wa taala hmm. waaye suñ digganteeg askan bi hmm. waaw am naa it nag yëg-yëgu ci ne hmm. euh, ñi nga xam ne ñooy yëngatu ci wàllu <coughs> métier avocat ba tey ji am na ci ay gor juge yi ba tey ji am na ci ay gor yii yëpp yëpp bokk na ci li nga xam ne dajale naa ko yéeg yéegandoor ko. yéegandoor ko xëy na ak yeneen yëg-yëg. Mm-hmm. est-ce yaa ngi doon xaar ñu bàyyi la ragaloo woon ñu teewaat la euh, ci loo xam ne xëy na yi teguwul fenn gannaaw toon nañ la ba ba ba yëfi yegg foofu. waaw parce que ci la tooñ xëy xëy jëlee la sa kër. Mm. kooku mënoon na laa téye à yaa ngi doon xaar loolu it. bu man xaaruma lenn lu dul dogalu suñu borom. Mm. dogalu suñu borom rek ndax xam naa ne jaam day bëgg ñoom loolu moom mën nañ ko moom ci seen pas-pas ndax tooñ bi métti na hmm. waaye xam naa ne yàlla day bëgg eh, suñ borom di bëgg maanaam ay eh, bi jaam day bëgg borom bi di bëgg waaye nag si boobaa bëgg-bëggub suñ borom mooy décidé hmm. eh, bis pour sa laaj bi dafa ma fàttali bis boo xam ne ndeysaan ca campénal hmm. man directeur bi sant Dia juge Samba Sall ndeysaan yal ko yàlla yërëm ñun ñëpp mu woolu ma ma ñëw moom Samba laaj ma ne ma waaw ndax amuloo dara looy tawat benn doléance benn càkkutéef ma ne ko aw benn càkkutéef bu may bu ma leen di jox yéen hmm. benn càkkutéef bu ma leen di jox mu ne maa ma ne ko déedéet aw ma ko sama càkkutéef yëpp ci loxol kenn ki la ko teg hmm. muy allah subhanahu wa ndax jaam bi doo ko jëlee këram jëlee ko ci njabootam tooñ ko ci loo xam ne moom wér na ko ne dañ ko tooñ hmm. andi teg ko ci barab di laaj ne ko ndax amoo looy ñaan <laughs> man aw dara lu ma leen di ñaan ki may ñaan kenn la muy allah subhanahu wa mu tontu la lan mu ne ma waa baax na léegi kon mën ngaa jóg hmm. mu gën a amaat sant sama borom subhanahu wa yal hmm. na ko yàlla yërëm amiin ala kulli xaal mbir la moo xam ne euh, dund naa ko dund ko sama mbokki sénégalais yi hmm. ñi ci biir réew mi rawatina ñi ci bitim réew nag diaspora bi mm-hmm. gis nga ay nit ñu bëree ngi ci biir biti biti réew mm-hmm. ngir ñu naqari leen ci anam goo xam ne ñoom ñoo doon dagg see seen i ñaar dërëm seen i juróomi dërëm seen fukki dërëm di dundal daara ji am ñoo xam ne ñu ngi fii ci biir réew mi buñ la waxee somme yañ doon yóbbu ca biir daara ja pour pour xale yi dund mm-hmm. daf lay jéem man waaw sa waa kër ak waa daara ja Euh, imaam naka la ah. dundee xew-xew bi yow dëgëroon nga waaye ndax ñoom yëf yi méttiwul woon ci ñoom. mënut a ñàkk euh, métti ci ñoom ndax jaam léegoo léeg euh, faaw rek la koy dal di métti ci ñoom waaye nag woyof na ci ñoom ngir lan ñoom ñëpp alhamdulilah rabbil alamina dañ leen a yar ci diina. Hmm. te xam nañ dogalu borom bi tabaraka wa hmm. moo tax ñoom itam yëgal ne de endurance bi nekkoon ci man moo nekkoon ci ñoom. Hmm. waaw amu yoon benn problème. soxna see nag nga xam ne moom laa la wax ne dafay jaay jógee daanaka sabam. Mhm. xam nga mag la. te itam euh, mag moom dafa am lu lu luy manqué ci moom. Mhm. walaay gisam. yal na ko yàlla yërëm. Euh, ñu ñëw imaam nag tey ci mbirum euh, terrorisme tey ci àddina mm. ak ci réew mi jamono yi ñu weesu assemblée nationale vote na ab loi boo xam ni euh, neenu dafa gën a dëgëral daan yi nga xam ne moom la ñu jagleel ñiy def terrorisme euh, ak ñi nga xam ne xëy na ñooy def euh, jëf yu ci aju tey ni Sénégal di gérer mbirum terrorisme yow en tant que sénégalais en tant que nitu diine ndax terrorisme it dañu koy lënkale ak diine yenn saay surtout islam noo ko jàngatee noo ko noo ko gisee doxalin woowa waaw loi bi ma fàttali histoire ndax terrorisme euh, pour la première fois comme ni ko benn philosophe grec gréco-romain waxee muy Philippe euh, Joseph Salazar Philippe Joseph Salazar nee na bu ñu doon remonté mbirum concept lu euh, mu kii terrorisme dafay ñibbi ci cent dix sept maanaam deuxième siècle cent dix sept ak cent quatre vingt nee na foofu lañuy ñuy yóbbu mbirum terrorisme te it nee na mbirum terrorisme boobu ab juge juriste romain boo xam ne ñoo ngi ko doon tuddee Pomponius ci deuxième siècle entre cent dix sept et cent quatre vingt Pomponius moomu moo njëkk a génne concept terrorisme juge la woon. Hmm. nga bàyyi xel tam da nga ma laaj problème mu luwa. Mhm. moo tax problème mu terrorisme ak luwa yi yàgg nañoo lëkkaloo. Mhm. tey ñu ngi ci deux mille vingt et un mhm. lii concept mu ngi judd woon cent dix sept jëm cent quatre vingt ci moment boobu ci la terrorisme njëkk judd ci àdduna bi. benn ñaareel bi mooy romain yi eh, dañu doon. utiliser kàddu googu pour euh, terroriser mbooleem ñi nga xam ne dañoo wute woon maanaam seen gis-gis dafa wute woon ak loi yi ñu doon appliqué ci seen réew léegi nag pour ñu daytaluloo leen moo tax ñu doon jëfandikoo erreur ci seen kaw pour wane ne ñii kat dañuy enfreindre les lois ci biir loi kon loolu benn aada la hmm. benn habitude la romaine bu fi yàgg lool soxna fi terrorisme comme ci loi nga ma laaj hmm. dafa am ñaari eh, dimension yoo xam ne boo gisee état yooyu doon ko jëfandikoo moom lañ ci jubloon bi ci njëkk mooy dimension éthique hmm. buñ jëfandikoo terreur ba terroriser nit ñi mu am effet dissuasif. d'accord pour nit ñi ragal jëltu gannaaw. Mm-hmm. dootuñ ñemee wax loo xam ne dafa waroo ak li état bëgg. Mm-hmm. ñaareel bi mooy dimension étatique pour imposer sa souveraineté. Mm-hmm. ñaar yi ñoo taxoon a jóg terrorisme démb ci Romain yi ay cent dix-sept quatre-vingt. bi ñu ñëwaatee ba ci ay mille sept cent quatre-vingt-quatorze te mooy gannaaw bu révolutionnaire yi jëlee état maanaam instauré li ñuy tuddee la laïcité. 1789. 1789 ñu def 90 91 92 93 94. 1794. ci la ñu andi waat baatu terrorisme. Hmm. pour terroriser les contre-révolutionnaires. nga gis ne kon aada bi romain yi la woon démb. Hmm. waaye tey laïc yi la républicain yi la. Hmm. te xam nga ne ba tey république boo koy toppaat cosaanam romain yi la. Mhm. nga gis ne kon histoire dafa delloo si waat boppam mille sept cent quatre vingt quatorze. Mhm. loolu boo ko toppee nag moo ñëw ci lii nga laaj léegi. Mhm. muy eh, mbirum sunu ñaari loi yooyu bala ma cee ñëw. dama lay delloowaat ci benn xutba boo xam ne defoon naa ko tuddoon ci ñaari gaay muy Jean-Yves Le ak Archie bi nga xam ne mooy ministre. euh, français de l'Europe mhm. et des affaires étrangères. muy mhm. Jean-Yves Le Drian boobu. Mhm. Patrick boobu mooy premier ministre ivoirien ñoom ñaar dañoo ins maanaam dañoo tadd Chine tadd Chine moo toll ak li ñuy tuddee inauguré benn institut wala nga tuddee ko sax académie internationale pour la lutte contre le terrorisme loolu la ko jiitu mooy gannaaw boo yégee ci weer wala passé mhm. ne français yi dañ leen a reeteet ci suufu Mali population yi jóg reeteet leen mhm. war leen ne soxlaatuñ leen ci seen réew mhm. ba sax président français bi amoon dogu ne day génne kon moom ay euh, force am muy barkaan mooy sentiment anti français bi tàmbalee juddu euh, même ba Burkina Faso partout partout partout partout en Afrique partout fi mu ne tey fa boo xam ne dafa judd ci biir Afrique. Mhm. déclenché nañ ko mu ak tombé nag jamonoy eh, li ñuy tuddee réseaux sociaux yi. Mhm. nga xam ne moom la président doon tuddee ñuy kacci kacci <laughs> loolu kanam la jëm incha allah. Mm. ñooñu di kacci kacci. Mm. bu soobee yàlla espace démocratique bu libre boobu. Mm. danañ ko jëfandikoo pour nettoyer waat Afrique te ñëpp ñi nga xam ne dañ ko bëgg a jëlaat. Euh, dugalaat ko ci ci guta hmm. dugalaat ko ci loxo pour ñu ñu téye ku nekk otage yi ñooñu di kacc kacc dañoo am objectif bu ñu am. mafia kacc kacc. mafia kacc kacc dégg naa xale yi di ko wax <laughs> léegi ci biir loolu ñoom ñaar ñooñu. Hmm. bi ñu inauguré institut bi. Hmm. dama bëgg lënkale loi bi ak institut bi. wala académie internationale bi. ci nga xam ne mooy euh, Jean-Yves Le Drian mm-hmm. dafa invité tous les acteurs de la région mm-hmm. Sénégal a ngi ci biir mm-hmm. te xam nga ñoom français ñooy suñuy kilifa ñoom ñëpp daf leen a invité ne leen nañu s'approprier pleinement outil exceptionnel bii nga xam ne mooy bi ma tudd léegi muy académie internationale pour la lutte contre le terrorisme gën a intensifier encore seen engagement commun contre les groupes qui les menacent mm-hmm. France nag saa yu waxee groupe qui les qui les menace mu ngi ci jublu ñi nga xam ne bokku ñoom ñoom pas-pas mm-hmm. parce que France dafa nekk dictateur dictateur boo xam ne dafay jëfandikoo dictature sur le plan doctrinal politique économique et cetera mm-hmm. jàpp na ne moom France mooy xolu àdduna nu mu gisee na la ñëpp war a gisee nu mu waxee na la ñëpp war a waxee nu mu habitué woon na la ñëpp war a habitué woon lu mu tëral comme loi moom la ñëpp war a adopté moo tax sax ba tey jii nga xëy xëy gis eh, saa yuñ ne mét eh, Macron lañ koy wax de. Mhm. Macron yëngatu la rek comme gis nga ni mu yëngatoo barkaati démb. <laughs> ci wàllu feebar bi ñuy tuddee Macron nu mu tëddee. Covid 19 coronavirus. Mhm. Covid 19. ba ma ko dégloo ba pare laa ne ah na Sénégal waajaat. ne kat sikk am <laughs> ñii nag nga xam ne ñooy sunu lakkali it euh, la jëloon sunu maam yi la jëloon Cheikh Ahmad Bamba exilé woon ko rahimahullahu tabaraka wa taala la jëloon ñoom Maodo Malick ci gàttal la jëloon ñoom Cheikh Omarou Fouti ba sax ñu jiitu ñooñu la jëloon fi ñoom Cheikh Abdoul Qadir Kane mm. ak ka ko jiitu woon di Thierno Souleymane Baal mm. ay jàmbaari diina yoo xam ne ñu laa ci mën a tudd waaye ñeneen ñaa nga fa mm-hmm. bëri fi loolu fa tabarakallah ña leen doon lëjal mm-hmm. ngir lan dañoo bokkul ñoom pas-pas seen gisin moo fi nekk ba tey moo tax may defloo attention bu baax sénégalais yi mhm. ak africains yi ci loi mhm. parce que institut international bi ñu ngi ko samp fële ca Côte d'Ivoire man li ma gën a yéem sax mooy eh, suuf su yaatu su rëy suñ ko jox mhm. ak nag liggéey bu rëy bu di nar a def ci sunu diir nu mu eh, région bi ndax recolonisation moo leen tax a jóg suñuy hauts fonctionnaires ñoo leen di former foofu ca ñun soo ci ba académie ba hmm. suñuy hauts fonctionnaires suñuy officier supérieur ca daara joojee lañ leen di former maanaam ca lañ leen di formaté takkan leen ay ay gis-gis yu niroog na France di gisee mbir yi hmm. suñuy hauts fonctionnaires suñuy officier supérieur suñuy magistrat malheureusement yii yëpp nga xam ne ñooy xoolu réew di ruufu réew dañ leen bëgg léegi di leen dajale foofa te institut international boobu la académie internationale booba di leen fa jox vision ci mbir yi yëpp hmm. bu ñu fa génnee nag euh, ñoom ñoo war a saytu réew yi sur le plan administratif hmm. juridique politique hmm. militaire doy na imaam daanaka ñaari simili moo nu dese. Euh, laaj bu mujj bi mooy doon ndax luwaay yi yëpp tam gisoon ni euh, cible principal bi mën naa doon ñiy daawa ñu mel ni yéen nga xam ne fu nu toll ñu ngi euh, fàttali te wax nga ni léegi France ñi mu gën a sonal mooy ñi bokkul ak moom pas-pas yéen nag rawatina yéen ñi nga xam ne yéen a gàddu kàddu borom bi subhaanahu wa di ko tasaare ndax gisoon ne cible bi yéen lay doon. waaye ñooy cible principal bi donte nag am na ñu bëri ñoo xam dañ ne Ousmane Sonko mooy cible principal bi <laughs> ak opposition bi mm-hmm. ak activiste yi ñoom ñëpp ay cible lañu mm-hmm. ba ci yéen ñooñu sax nga xam ne yéenay bindkat yi mm-hmm. ndax am na benn article dix-neuf boo xam ne ci code de la presse tëkku nañ leen fa yéen itam <laughs> moo tax kenn mucc ndax ñii di borom tur yi ñaari tour yi nga xam ne ñoo lëmbi àdduna bi Eh, daa duwaat yooyu nga wax ne nga xam ne ñoom ñooy yëngatu ci wàllu diine bul fàtte 23 mm-hmm. mai dañu woon nañ fi à l'échelle nationale. 23 mm-hmm. mai ci suñu sunu cinq département tàkk woon la criminalisation de l'LGBT gis nga loola loi bi dafa ñëw pour jox leen réponse mm-hmm. wax leen ne waxuñ criminalisation waaye yéen ñooñu sax jóg naan dañ leen a war a criminaliser yéen ak seen bopp bu ngeen waxatee ci ñoom ay terroriste ngeen kon réponse la waaye nag jàpp naa ne niñ ko jàppee ak niñ yaakaaree ne na lay yombe <laughs> dana sori yoo parce que sénégalais yi léegi eh, alhamdulilahi rabbil alamina la leen daan teqale teqalee tut leen mhm. yeewu nañu ñen nañ daan mën a jógee rek leen neex ñu jaboliser jaboliser Mamadou Dia ma jaboliser ñeneen ak ñeneen yàq seen carrière booba réseaux sociaux yi amul mhm. tey nag alhamdulilah rabbil alamina jeunesse bi mag ñi sun classe bi nga xam ne tey ñooy mag ñi heureusement am na lu ñu fekki ci démb mu bëri lool bokkaat ak ndaw ñi seen jamono kacci kacci ji nga xam ne moom la ndaw ñi jëfoo jëfoo ñu bokkaat koog ñoom ah kon yaa ngi ci biir kacci kacci gi yee <laughs> eh, maa ngi ci biir ba sama vingt quatre heures sur vingt maa ngi ci baado <laughs> jërëjëf ndax ay suñu borom indi la jërëjëf mm-hmm. waaw waxtu bi gàtt ko foofu rek. wallaay bëri na leneen lu ñu mënoon a waxtaanee waaye yoon yemul ci benn incha allah daanu amaat euh, yeneen jotaay yoo xam ne danañu ci wax euh, yeneen ndax itam ku actualité yitteel nga euh, ñu ngi lay gërëm bu baax Imaam Ndao mbégte mu rëy laa amoon ci waxtaan ak yow ñu lay ñaanal yàlla dëgëral taxawaay wi yàlla itam taxaw daara ja ñu sant la lool itam ci li nga nangoo partage ak ñun wax ñu yu bari yoo xam ne xëy na mënoon nga ko dencal sa bopp démb ak tey amoon naa mbégte lool dalal la ci imaam Alioune Badara Ndao Fatou ah, lay jërëjëfal di jërëjëfal euh, rajo bi ngay liggéeyal mhm. di ñaan borom bi tabaraka wa taala suñ borom euh, dem ba def ko ay télé yu bëree bëree bëree bëri yaatal seen activité ci euh, réseaux sociaux yi amiin campagne de sensibilisation bi nga xam ne tey Afrique soxla na ko mhm. ngeen gën mën ci def seen loxo amiin amiin combat bi nga yi jóg nañ ko ak ñi nga xam ne ñooy doxaat yi ngeen gën ci mën a def seen loxo kattan la yal na yokk. amiin asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu jërëjëf imaam Alioune Badara Ndao moom la ñu doon dalal ci démb ak tey amoon ci mbégte mu rëy waxtaan wi nag euh, sorewaay wee tax ñu def ko ci téléphone waaye ñu ngi koy gërëm leer na macha allah li mu ci wax itam yu bari du ñàkk mën naa dimbali képp koo xam ne ëllëg nekk nga ci situation yu ni mel ak tey bi mun ngeen ko teeluwaat ci réew mi officiel mooy suñu chaîne ci youtube ñu dégg leen daje beneen dimanche allah waxtaane keneen gërëm jaawo jàlloo mi newoon ci jàppandal gi Fatou Thiam Ngom la woon ci kàddu gi ñu yendoog